def suñu devoir citoyen muy wote tànn ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ni tey ñoom ñoo war a teewal si pencum ndaw réew donc euh, mu nekk euh, geste boo xam ne man dama jàpp ni mooy fête de la démocratie tey képp koo xam ne joxe woon nga sa baat ngir ñi nga xamante ni si ñoo ñuy teewal ñu toogal la waxal la defal la bés bii nii mooy bés bi nga xam ne dañoo nangu sa baat jox ko nga xam ne moom la yaakaar kon euh, mu nekk bésu mbégte waaye nekk bés bu symbolique tamit dafay wane rek ñu ñu ngi ci république boo xam ne république bu état de droit la république la boo xam ne tamit euh, république la boo xam mu ngi wax lu war a defee kon euh, tey kontaan nañu fi nemmeeku nag xëy na mooy gis nga ñu ambiance bu bëri xëy na li mu teel la waaye it mu nekk ci wicc ñuy euh, wax rek askan bi nu mu génn ñun ñëpp ñu ñoo woote parce que am solo la ci euh, li nga xamante ni si moom la ñu xaar ci waaw message bi may lancé bi mooy euh, candidat yi amoon nañu ñaar fan ak benn pour wax a ñoom lépp li ngeen wax nag dégg nañ ko tey bi nga xam ne ñoom it dañuy ñëw tontu dañuy tontu ci ay jëf. jëf ji mooy ñëw tànn ki nga xamante ne si moom la ñu jàpp ne moom la ñu yaakaar ci euh, mu teewal leen fële ci assemblée. kon message bi ñuy lancé rek mooy message bi ñu mës a lancé ba léegi mooy ne Sénégal yëpp génn ci dal nañu génn ci teey waaye nañu génn ci jàmm ñëw voté euh, nañu ñëw tamit fësal ñoom seen tànneef. voilà du bësu xeex du bësu xuloo du bësu werante lépp lu waaye doon wax amoon nga jot wax ko wax ji léegi jeex na ay jëf moo des kenn ku nekk génnal ci jàmm. nga ñëw voté si jàmm delluwaat sa kër toog ci jàmm voilà moral bi ma am mooy bi ma tàmbale woon campagne bi ndax dama jàpp ne li ñu waroon wax ak sénégalais wax nañ leen ko ñun teg nañu ci loxo sénégalais yi loo xam ne kenn tegul seen loxo kon euh, ku def lu kenn deful rek di nga am amul kon suñu moral wax dëgg yàlla baax na lool kontaan nañu suñu xel dal na te jàpp nañu ne incha allah euh, li ñu yëg ci doomu ndar yi ñu wax ñu ko yëg ko ci sénégalais yi ñu war ñu ko élection yi bu ngoon jotee euh, dina am mbégte mu rëy moo xam ne sénégalais dinañ ko am ànd ci ak Aar Sénégal.